29 euh, euh, décembre euh, le conseil départemental m'a donné réunir ici ces salles de fête, pour voter son budget budget est évalué évalué en recettes et en dépenses à la somme de 540 millions Raphaël nañ aussi que bu voter son budget si la ñu l'arrêté du ministre des collectivités territoriales et du ministère des finances vous indi exactement euh, fonds de dotation yi comme ñun ba ñuy préparé wu aussi dañu dañuy def un budget de vérité euh, montant yi ñu arrêté que ce soit euh, en FDD et en FCL dafa xaw correspondre pratiquement ak li nga xamné mom lañu jot ndax ku doon yaakaar ci fonctionnement 90 millions so jotee 85 millions amna effort yu état def ku doon yaakaar ci 250 millions nga am 206 millions amna effort yu état def mais loolu yëpp ñun jëloon nañ ko en compte moo tax su suñu budget ñu prévoir aussi ay recettes supplémentaires yoo xam ne ñu ngi koy xaar par exemple ci organisation forum euh, international bi nga xam ne ne deuxième édition bi ñu ko prévoir ci euh, euh, mois de octobre deux mille vingt et un am nañ yeneen recette aussi exceptionnelle yoo xam ne yaakaar nañ ne état war nañu si mën a gën a jàppale pour que programme bi ñu mettre en œuvre ñu war ko mën a réaliser programme boobu nag continuité rek la continuité dans le domaine de l'éducation, continuité dans le domaine de la jeunesse, continuité dans le domaine de l'attractivité du territoire, mais aussi continuité dans le cadre de la coopération euh, décentralisée. Et on résultats qui wóor Si ndax si l'éducation euh, depuis pratiquement six ans conseil dit « amul une euh, commune boo xam ne sur intervenir lycée ou le système dans le territoire du département de Rufisque su fekkee ne tabaxuñu réhabiliter nañu wala équipé nañu loolu nag lu am solo la euh, donc si loolu la ñuy continuer pour yeggale non seulement yi nga xam ne mu ngi en cours mais si 2021 aussi euh, fas yéene nañu waat tabaxaat ay classe jëndaat ay tablement mais aussi euh, équipé en termes de reprographie yenn établissement scolaire yi